di nuyu waa dina waa Sénégal waaye di ci jiital kilifa diine yi di ci jiital waax xalul kuntiyu nga xam ne ñooy sunu sëriñ macha allahu taala noonu la nuyoo rek ba ndànk naar nga xamante ni mooy sunu cosaan di sunu dëkk ñu leen di nuyu di ko nuyoo waa Sénégal ñëpp di leen wax salaamualeykum wa rahmatullah waa 7TV mhm. mhm. ayca looy bëggalee soppay ala kun aabidan wa nasikan mustamsikan bil xabli laa irbaane laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ah yéen kunta si di am ngeen garaat na bey seen maam doy garaat yéen kuy seen maam seydil mursaliina waaw waaw lay la xaay laay soo demee jaasaan subxaana su nit juddoo subxaana laay su nit saa su nganamee subxaana laay laa ilaaha illallaah yàlla yaay borom doole yàlla moom mooy borom doole wooy yàlla nu fekkee déwén borom doole jeey anta maalikul jabaaru laa ilaaha illallaah moom yàlla bam dee di buur yàgg na looleey mësula woote élection kenn mësu ko coup amul lu aar mbaa lu mbaa koy xettali ci lu mu laa walawul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiiro nguuru yàlla rekk a jeex moom yàlla dong mooy yàlla walu moo fi jiitu ba dara dul dara axiru bu ñëpp dee moom dong moo fi des zaxiru yàlla moo feeñ wal baatinu te moom daal moo nëbbu waat naa ne kenn amul fenn fu muy jaar baraw ko dëgg-dëgg daal yàlla mooy borom jaam yàlla moom moom mooy borom jaam a yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nu fekkee déwén te bu ñëw dàq bi jàlloon wooy ci barke Seyduna Muhammad ayalla borom jaam ñi ayalla borom jaam ñi ayalla borom jaam ñi tudd leen sellu yàlla buuri jaam la ilaha illallah la ilaha illallah jërëjëf euh, Sadikh fa nga ñu génnee neex na lool ñu euh, lay jaale suñu góor góor nga xam ni moo fi làkk woon euh, xalif bi ñu ngi koy jaale seexal bekaay ñu koy jaale bu baax a baax a baax di ko suñu mbokk yooyu nga xam ne mooy Cheikh bu junior ak Cheikh bu Diop mu mag mi ñu ngi leen koy jaare baax di suñuy xarit di suñuy wóllëre nee naa njabootu njaboot njabootu diine yi kër diine bu nekk rek am nañ fay soppe am nañ fay xarit ñu ñëw tuuti taxaw ak yow si waxtaan wi ndax gis nañ Sadikh Faye moom day tëju rek Sadikh lu muy xaar pour génn génne album yi bégal jox ko soppe yi. ah kay ñu ngi ci ñu ngi ci di ci ndab na bi xam nga léeg-léeg rek bu yëngu-yëngu amoo ñu jugandoo rek. Mhm. bëreet gi day bari. dañoo mhm. bëgg a def tekki rek ba poussière gi yëpp dal. Mhm. ñu door a jóg ndax suñu borom dimbali nañu ba nu xam li nu yor. moo waral léeg-léeg bu bëreet amee sax. wala lu ñuy xëccoo wala lu ñuy buuxante. duñ fa bëgg a teg suñu tànk. moo waral léeg-léeg du ma bëgg du ma dem foo xam ne wowlu mhm. ma fa du dem foo xamante ni tiit euh, rawante moo fay am mhm. comme léegi ni ko jànkat di defee rek mhm. defante gu métti geeg yooyu te ñun pour ñun ay tagkat yonent bi la wa sallam waaw dañoo war a dépasser loolu yu bëree bari dafa xewi la Serigne Cheikh di wax yàlla na ko yàlla fayal amiin waaw kon nag bu nee la yow tagkat yonent bi sallallahu waaw am na am na am na fu mu la canaliser kon da ngaa war a xam loolu dëgg-dëgg loolu ba war a jaar ci loolu rek. macha mhm. allah sa dex mi mel ni da ngaa xaw a jafe ndax pour woor a jot la sax léegi <laughs> kéemaan la <laughs> lu war loolu. <laughs> jafewul nag nu ngi koy jéggalu bu baax a baax yow suñu xarit nga. loolu mhm. yàgg na du tey. Mhm. wax dëgg yàlla waaye sa à dire léeg-léeg mbir yi dafay demee noo xamante nii rek. toog nekk ci sa ruq daf koy gën fuuf. wax dëgg yàlla loo am it mu doy la. léeg-léeg damay wéet daan ne aw ma dara nag maa ngi sant yàlla waaye mhm. dama naan àddina bi maa ëpp xaalis mhm. xam nga lu tax wala ma ne jànkat yi maa ëpp xaalis mhm. moo ne woo ma oto de maa ngi nuyu Assane Ndiaye ma àndal nga xam ne moo ma yab indi ma ci otoom yàlla na ko yàlla defal wér waaw yokk suturaam xéewalam ci barke yonent bi loolu nag li tax ma di ko wax mooy doylu gi ma gi ma gi ma gi ma suma borom defal su ma gisee baax na su ma gis maanaam su ma maa ngi ci sama yoon di dem ku ma gis baax na ku ma gisut damay jàpp ne man rek maa war a dem maa war a mën a àggale it yoon bi ma jëm mhm. te ki ma gëm Cheikh Abdou Khadir Jilani dafa ne mhm. yàlla su la bëggee dimbali dëggantaan du ko jaareel ci ab nit mm-hmm. te yoon wi ñu nekk yoonu missionnaire dëgg la mm-hmm. waaw dafa dafa dafa bëri xaaxaam mm-hmm. waaw bëri na ci ku ci nekk ñu koy tàcc ak di ko wuxoo fekk na yow déedéet li yàlla xam day na te ñun nag ay maga ñu yar léeg-léeg dañuy rus a def mbaa ñu jomba def yu baree bari wax dëgg yàlla rawatina nag fu nu bokk mu yaxlul kunti seetlu nga leen ñoom projet yi yan def mooy projet yi projet yi Mm-hmm. waaw bëgg nañ góorgóorlu rek ndax am na ñu nekk ci suñu ginnaaw. Mm-hmm. ñoo xam ne ñoor wàllum liggéey bi maa ngi nuyu baax soxna Ndeye Binta ba ca Thiès. Mm-hmm. moom ak waa staff bi ñëpp. donc buñ jaaree ci moom rek mel na ne tudd nañ ñëpp. ménagère bi Babacar ak Mara càmm ñëpp baaba daanaka bu ñu limee rek du ñu matale. waaw ñu ngi ci projet yi fan yi passé génnee nañ benn single way ci axlul kunti yu bon bëgg nañ balaa tam xarit bi nga xamante ni sunu gàmm gi ñuy waajal. Mhm. ñu ngi leen ci woo. di ci mhm. woo waa dina bi yëpp tam xarit gi. Mhm. leen ko fàttali rek ndax bis la boo xamante ni rek. saa bu ñëwee rek xel yëpp dem ci Médina Gounass kon ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax a baax di tamxarit bi bëgg nañ balaa tamxarit bi ñu wayaat yonent bi lu neex insha allahu taala def ko clip indi ko fii 7TV ñu teg ko insha allah mu wayaat ñu yonent bi من صديقنا محمد نلو نلواتما بياندوري بياندوري jille waaya ne waaya jara kamti kamti yàlla may baat bu neex mbaa mbaa ko wayal seyduna muhammad jara way moo jara kañ moo di xay aminatu bintu wax bin jur na yasiru insaan ah, moo di yaayu rasul say morom lool saa nga jóg di ndokkeel Asiyatu desul dafa ñëw maanaanta il majdi wal la woon kufrak moom doo daanu man de maa ngi ci moom ale fi yëg tàggewun ma seyduna muhammad nabiyun lawut axna dinaa mooy nabiyun azimul xat yaalu bi bi muskananti looy gën lanu yaakaar ci bisu ay mu jaale noo ne foo dem ñu jox ba kula siit naan waajaa ngi ney mu sawa li sëkk yëriik lu mu mën lii ki ko mën ma nga ca kuy tagg yonent bi wa waroo di siis bul di waroo di siis bul nay del joxe feebar bu metti del na ma damay dox di biir te daanuma sama xol bi fees dell ak mbëggeel ba sama bët yaa nga faf lëndëm ba gën a sew mat ji la waaya neexa mooy ñëw ci madinatul munawara tim sa sayduna muhammad gën gënu yaay te yaay lii ki kaman xam naa dafa xaw a guddi. am nga foo war a dem programme dañuy dañuy dañuy bàyyi xaaj Mansour préparé ñëw yeeg euh, Omaro yi ñu lay siyaare bu baax. dinaa bi coow li bëri na lool si yow waaye doxalal rek. doxalal rek naa Seydina nga àndal ñun xam nañ si dara ndax euh, liggéey bu am solo yu. 17 avril bi jëf yu am solo ñu ngi fay joxe. yow yow moom xam nañ nit ñi ñoo. lu set cant gi xam nañ bu baax a baax a baax Sadikh la ngay tàggatoo. waaw di la jaajëfal rek di bëgg ci ak mm-hmm. di nuyu bu baax Mansour moom woon soppe mm-hmm. ni tase woon ca maa ngi koy nuyu bu baax a baax daal defal jàmm defal ko wér ak ñëpp ñu toogoon teraanga nañ ko yal yàlla fay la ndax dafa am mag joo ko yàlla yërëm te xare xaar loo xam ne ñun la wax mi am fay li ngay def te xaaroo ci ku ne la merci nangam ak nangam macha allah du woote te ñun duñ naa Saliou borom parfum yeeg borom montre yi rafet yi mu ngi toog jàkkaaroog ñu mm-hmm. yal na yàlla defal la jàmm diggin mm-hmm. ca mars yokk xéewalam ci barke yonent bi bëgg na dig daje rek mm-hmm. tam xarit inshallah Medina Gounass waaye di ko fàttali waa Sénégal bi mhm. xam ne yàgg nañ ko ànd ak ñoom aleykum wa rahmatullah yaa ngi yaa ngi yaa gërëm nday binte nday binte jegen sama seex la mhm. waaw ndax kii kii kii war a ñëw Mansour mi mhm. lay ndeysaan mu nekk mooy ku baax yàlla mënal na ma lu ma mënalul sama bopp mhm. waaw yaa ngi toog fii waaye teewut mooy rek laa wax dëgg yàlla mhm. nee naa ko mënoo fi woon a ñàkk mhm. amaana boo fi ñàkkoon lu bari daana du feeñ kon yi yëpp di am ginnaaw yàlla moom la yal yàlla dëgëral ko